しい。 mu nekkoon ki ñu doon dakkantale Chérif bay Fall Abdourahmane Fall Tilala nekkoon na ab kilifa diine maanaam ab guide religieux ci communauté mouride bu Sénégal mu tàmbali woon di addu ci nataalu mam Cheikh Ibra Fall ci atum 80 ca réewum Côte d'Ivoire moom Abdourahmane Fall Tilala ci négalu Serigne Moutada Mbacke doomu Xadimul Xadim moo woon réewum Côte d'Ivoire balaa ci Sénégal fii ci mi mu nekkoon ku ràññeeku lool ci yenn ci ay événement moo xam muy gàmmu wala sax yeneen ndajeg diine ay kàddoom doon na àddu ci booloo rawatina nag wàlla nga politique bi moom Chérif Abdourahmane Fall Tilala doon na it àddu ci lu bëri eh, ci ñu respecte dogalu yàlla te bàyyi bépp xiiroo ak ŋaayoo ngir lu jëma réew mi eh, ci kanam mu doon it àddu nag ci ay comportement yu rafet moo xam ñaax askan wi ñu bàyyi lépp luy viol wala sax di rey ay doomu aadama maanaam daal ay ñaawteef muy nag ay comportement yu mu doon digle eh, ci lu njub ak it def lu baax

di violé jigéen ñi di yàq dëkk bi yàq turu dëkk bi yàq turu lislaam fii te koy def ay doomi aadama lañu ay jigéen a leen jur yoonu Sëriñ Tuubaa wi loolu ku ko si boole yaa boole sa bopp si yoon wi waaye Sëriñ Tuubaa bëggu laa gis àddina bëggu laa gis àllaaxira képp koo xame ne yaa ngi def lu bon fan koy defee ragaloo yàlla tiitoo jaaxle woo amoon loo naqari xamoo ne yàlla ngi la tiim ba pare naan sëñ Tuubaa nga yaakaar waxoo dëgg waxoo dëgg da ngay kàcc yaakaaroo sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko yaakaar si jàmm ngay nekk si xéewal ngay nekk da ngay jaamu yàlla ragal yàlla topp yàlla xam ni ngay def seet sell nangoo liggéey daan sa doole di ñàq di jib ne ku yaakaar sëñ Tuubaa foofu ngay nekk